dama janoo ci ma neex Seexu Sëriñ Tuubaa sama yaram dafa beex dama janoog ki ma neex Seexu Sëriñ Tuuba tey sama xol dafa neex sama yaram dafa beex dama janoog ki ma neex Seexu Sëriñ Tuuba soo bejo neex nga ma lool te jaadu dugg na ma lool man gaaw lay na ma lool cantub Sëriñ Tuuba lamalol say ka gudugu namalol man gaaw lay namolol cantub sëriñ Tuuba dina aar ba may ma kër Tuuba dam na la ngay sama yaay da def la ngay sama baay di sa wasiila tuwaay di sa sëriñ jëfati sëriñ Cheikh Béthio Thioune Cheikh bi Thioune daara Jannatul Maxwa ñoo lay ziar ci màggal bi gisu màggal bi tey di la ziar ngeen di kaweeg ziar di jiital ak di leen seereel bég bu nu bég ci boole gi nu sëriñ Saliou boole seen jëmm ji. Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg loolu te wér jërëjëf Thioune Cheikh bi ñu ngi bu baax a baax a baax. mel na ni fu toll nii dañoo luum ñoo wax ngir bëgg di seere ni sant nañ bu baax a baax a baat ñoo ngi ñaan Serigne Saliou Mbacke sax fi nga yàgg fi yàgg koo liggéeyal. sa bis bi bis bu rëy bi mu mel ni dañ ne yow man maanaam bis bi amul temps amul amul espace waaye maanaam bis bi bu ñëwee ñëpp xam ni bis bi ñëw na cuun ñu ànd nga nga ñun waa daara ji daara ji nga xam ni maanaam euh, ni mu sosoo danga ko jaarale ci jëmmi Soxna Aida taalibe yi ñu neex àndal lañu te cuun ñuy sant maanaam saa su ne loolu du jóg ci suñu làmmiñ ci jëwriñ yi nga ñu boole surtout Soxna Aida mi nga xam ni maanaam saa su ne daf ñuy soññ te soññ ni mu ñuy soññee maanaam saasu su ne di ciy jiitu muy jëf ji maanaam wax ji lu muy wax rek day ànd ak jëf ndax wax ak jëf dafa sore waaye saasu su ne lépp lum ñu soññee rek dañu ciy jiitu waaw mbokk taalibe yi nag dañu wane ak bëgg ndax maanaam lépp luñ jëf du ak du du loo xam ni jëf yi ñuy jëf comme ni ko soxnaa yi da waxee euh, du du du jëf ju rëy te niñ koy dajalee ak niñ koy joxee mu mel ni néew na loolu waaye cuun dangeen ngeen ciy def taw féex ba ñun xam nañ ni yéen ci dugal seen loxo ñaan jërëjëf Serigne Saliou Mbacke jërëjëf Serigne Saliou Mbacke jërëjëf Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi sax dak Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi sax dak pour gën a ñaaw sëñ Béthio yaa ngi jëf ñii nit def na ñuy gor ñun sëñ Béthio sagar sax buñ ko soloon ku nu gis bëggunu ndokk ban dul soli sagar sëñ Béthio nga defar ñun fii boo fi xoolee kat booy xool âge quatre-vingt gën fee mag soixante-dix-neuf noo fi ne ñu nekk janatu cun nga may ñu xéewal may ñu jàmm cun maa ngi sant bu baax baax sëriñ Saali man doogu maa la war a sant ba dem ndax sëriñ Béthio li nga ma defal man nii ma mel musuma kaa mel barke Serigne Saliou Mbacké yaa ma dafa jox ma sa soxna muy soxna Aida ak Cheikh Béthio jërëjëfati sëñ Béthio sëñ Béthio yàlla na nga fi yàgg te wér sëñ Béthio ñun ñëpp la war a sant waaye ñun jigéen ñi nag ñoo ci raw sëñ Béthio góor ñi war na laa sant waaye ñun ñi ñoo la war a sant yàgg te Cheikh na fi yàgg ñu ne sëñ Béthio dañuy sant di sant soxna Aïda ak soxna Bator mii ndax jàppale gi ñu jàppale ci Maxwaa cun ñun man 94 laa fi ñibbisi mais sëñ Béthio soxna yi bañ fi tàbbisee Maxwaa neex na si man neexaay boo xam ne fi mu ne nii bëggatuma sax gis Dakar. bis bu màgg bii nga xamante ni ñun yoonu murit moom rek la nu am amuñu dara lu ko féete kaw. Mbacke yàlla na fi yàgg tëbi ñun de xanaa wax ji rek laa tële. waaye man de maa war a sant ba damm man de kuy sant man nga war a dimbali ndax sëñ Béthio danga maa féete fu ne ba ba may feeñu booba maa ngi Cees nga dima feeñu ma dàq ñëpp topp la danga danga daan ñëw kër sëñ Saliou ma lay topp te xaw te booba xaw guddi nga daan ànd ak sëñ bi may jóg di la topp nag wax ji ma lott si xam naa li ma nekk si biir kër gi la waaye li may gis su ma mënoon wax di ko wax kon àddina bi yëpp toj waaye nag man lay ñaan nga yàgg fi lool yàgg sëñ Saaliw xam naa yow ndab bi moom sëñ Saaliwu yal na ci xajat ñëpp yal na ci ku nekk fi yàgg te ak soxna yi sëñ Béthio sa kër gi yaa ko moom de waaye bu neexee soxna yi la kër bu neexee sa jigéen ña la ndax soxna Ayda mii màggal ba mu commencé ba léegi maa ngi moom mi ngi nii dama dégg so baam bi maa ngi ko woo dara ma ne ko lépp mat na reer biig la ma jox reer samay gan dañoo reer sant nan la gërëm nan la ñaan nan la sëñ Béthio nag man li ma métti mooy maa ngi lay tuubal di tuubal lu ma xam ak lu ma xamul. lu doy te bu ngeen gisee kat ngeen gën a yàgg jëpp am na lu tax damaa jikki ba yàgg ma yëg nii. mangi ngi ci biir ar urulay ni dama ne jayuma leen sañuma leen a jay ndax li may may deg. dama amul fenn li di wax lépp gëm naa ko yéen ca dëgg dëgg dëgg dëgg yéen a ngi dox dox boo xam ni ku amulub seetlu di ngeen ko rëcc ba bis dina taxaw dina dugg seen biir dootu leen xam ah maa ngi leen di seere leen barke Sëriñ Saaliwu yéen rafet mbir am na mbir de ba leen te seet borom kër yi laay waxala ah. seet borom kër yi ku joxe may gu war ngaa dolli ku ko joxe wuroon na ko waajal dama ni yéen nun góori noon góor góori jànnatu noo dàqi soxna waaye xool leen li may wax ndax damay wax rek wala li may wax dëgg la waaye xool leen lii waay ak dégloo yéen la seenug cant la ma seenug cant wóor yéen lu ngeen doyul ci suba dama siyaare ji woon Serigne joxe naa tey te tey dina dinaa leen ko yëgal joxe na tay juba mus te jox sëriñ saliw bama ma ak mom ak léegi tay waxuma ko gir naw la ma def dama koy wax gir feeñal seen jëf du gor du jigen juma musa jox juróomi million yene dara ci Senegal. daara ju ma musa jox juróomi million yu bokk buum yéen waa jànnatu yéen a raw ah xam nga bu bu dul woon dëgg du ma ñëwee jëlu rajo taalibe yëpp wër ma ma di wax daa am du ngeen morom seen juróomi million la ya laa boole tey ak sama stoot jox sëriñ saaliwu mu doon loo xam ni musuma koo joxe seen juróomi million ya fanaanee na tey jaroon xay nga sëriñ saaliwu dimbalee ci mbooloo mépp xam nga ak dégloo xam nga lim ma dimbalee ci mbooloo bi ci jigéen ñi jànnatu la gën a jigéen ñi jànnatu gis waaw xam ngeen nu ma meloon xam ngeen nu ngeen meloon bu nu yokkoo xam ngeen ah jant gee de ku ci dàq sant yaay gën yaay raw alxuraan la ku sant ñu dolli la faaw ngeen dolli ko ci yéen man dey mayit sant naa Sëriñ Saaliw ci yéen ñii xam nga lu ma laal lu ne walla lu ma wax lu ne sant naa ko ca loola waaye nag sant naa Sëriñ Saaliw ci sama jeeg ji waaw rafetaay bi kat ci ñépp la ah kenn dàqalewu ma kenn dàqalewu ma wan ngeen ma taalube wan ngeen ma pëseef te billaahi jigéen ñi jànnatoo maandu yéen a maandu jaageet jëf jaageet jëf jëf yi di yokku di yokku di yokku seen rafetaay bi di yokku di yokku gaañi ci màggal gi mu mel ni boo seetee boobaak léegi ñeen fi joto woon te lépp nekk ci màggal gi yu jàll ak yéen ci bâche bi nga ni comme ni ko Serigne Touba waxee woon bu beer ndey jàng jàllee ñu teg ci njàngoom xaside yi teg ci njàngoom alxuraan wi njàngum xasida yi nag ren na ni gaañ yi wane nañ ci pastéef ci jëwrin yi ku ci mel ni Pa Assane Diouf jiite jëwrinu jàngkatu xasida yi maanaam nekk nañ fi ñetti fan di ko def daara par daara ba màggal gi yegsi ñu fanaanoo ko itam jàng comme ni ko sëriñ bi diglee woon bu bernde yi weesoo njàngum alxuraan bi ca la njàngoom xaside itam ca la mel ni mbég moomee sëriñ bi fanaanoo ak gaañi fanaanoo ñoom ci cant ba asamaan set mu mel ni gis ngeen mbooloo mi ñëpp taalibe yi ñëw sëriñ bi te mu mel ni gaa ñi kuréelu xaside yaa ngoog ñoom itam fanaane ko cant gi ànd koog sëriñ bi ci mbég màggal gi sëriñ bi nag ñun taalibe yi ñëpp ànd nañu maase di ko ñaanal mu yàgg fi di ñaan sëriñ Saliou Mbacké yàgg fi ñaan sax day mel ni dañoo am obligation ci moom ab taalube day yelwaan te bu yelwaanee ñu sarax ko kon ñoo ngi ñaan sëriñ bi sarax nu te yàgg fi te bu saraxee ñu jël kon ñu ne ci màggal gi ba tey foofu ngeen di gis nag di njabootu boppam di soxna yi boppam ñooy ñëw noonu di dugg si fas yéene ñoom itam ànd ci guddi magal gi ànd ko ci cant gi guddi magal gi asman set gaañaa fi jeex dex bee te yuuga fa moom maandoo matta mu àndal yaa ko kabee daal cuun itey sëriñ saal mbàkke boroom got kenn du sa waaje mbàkke boroom got cuun sëriñ saaliw fanweey daaraak juróom bu di nekk cinq cent nit lay dundal añ reer ndékki te cinq cent te moo ko jël a charge boroom bee sëriñ Saliou yaaram dàq na xiif ak mar lépp la yombal lum gën jotee ñéppay sant ba gi jal te nga ñu xeexoo a jàlle nga réew mi asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu bokki taalibe yi bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ku nekk maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam maa ngi seere mbooloo mépp sama mbég ci yëg gi ma yëg cant gu ma ameel Sëriñ Saaliwu te mu wóor ma ni duma ko sant mukk ba matal ak li mu am ci man ngir li mu doon ci man li mu jëf ci man lim ma amal mënuma koo sant ba jot ko ndax mënuma koo fay te mënuma koo sant ba jot lim ma defal loolu yi tax na mag kumaam sunu warugar mooy sax ci sant Sëriñ Saaliwu sunu giir dund loolu di lu tax mooy damaa defal lu ëpp sëriñ musta defal kenn lim ma defal boo jàngee taarixul islaam ca yonent yi ya fii nu ne doo dégg ab yonent bu ko musa defal saabaam doo dégg wàlliyu bu ko musa defal ab taalubeem bu bëggee ab sëriñam ba yegg ci sopp ko mën naa ndax cofeel gu ne yegg ci am ndox te dof de lu mu wax mën nañ ko ko jéggal loolu yi day laa xam ni loolu yi mu wax de dara du ko ci fekk ndax baara day doxinam wi sëriñ Saaliwu sama sang ba daf maa wax daf maa musa wax ni ku yenn loo àttanul faawu saw doxin ñaaw moom mii nag daa yenn lu mu àttanul baara dafa maa bëgg mbëggeel gu sar dafa maa sopp di jàng ci xasaayit yi lu mu àttanul te seetul xasaayit yi ñu war a jàng te dëkke ko ak yi nga xam ni léeg-léeg rek nga ñam ca bëy balam ko defati amu dir waye lu melni ni betul murahib da ko dab baxoo da ko dab te lol de man na yak bopp mom la ni tuddi jelu murid bu ko defé nag leg leg mu tabbi ci li ni tuddi al te bokul ak al de Bukul ak al, al lu fi jaar la lu yëkkati góor di ko yóbbu ci yàlla waaye du yàgg da koy dellu si waat ci ngir waaw al bokul ak àgg ci daraja daraja boo ca xasee yegg dootoo fa jóg moom la tubaab tudde station état spirituel waaye aal mooy nga jikki ba yàgg mbirum yàlla tàbbi ci yow nga mel ni nekkatoo fi di wax loo xam ni nit mënu koo xam fekk na booba yegg nga foof du sab liggéey du sa jëf du sab sëriñ moo la fa yóbbu da liggéey ba yàgg rek mbirum yàlla dikk ci yow waaye day rees day daal di deñ fa nga newoon da wàcc luy mel noonu dana dal ab taalube waaye man day wallaay ku ma ni yaay yàlla kon day man de xaw ma sëriñ Saaliw lu muy doon man day kon xaw ma sëriñ Saaliw lu muy doon bu ma dee yàlla kon sëriñ Saliou lu Dumayang, doon déedéet duma yàlla jaamu bi yàlla laa bu nungu ak njaamam man de leer na ma ni maa jaamu li, Saliou bokki ni de xam ni de li li man lii ku ñu ko defal te waxoo sa sëmbit yàlla bu di sax da ngay bëgg a benn baaraam sant naa sëriñ Saaliw lool sant naa ko amatuma kàllaama bu ma ko waxee te jell ka da dul ak cant faaw ma wax ndax bu ma waxul goree dinaa te wax naa ba xamatuma lu may wax te faaw ma wax damaa ànd ci suba ak sëriñ Sall gën tàppe sama taaw ndax sëriñ bi daf ma ni màggal gu ca yoor yoor ba te mooy màggal gi bala maa nuyu kenn na ba jox loxo ma yeewu six heures matin di dem di seeti sëriñ bi di tàbbi ca kër ga sept heures et demie mooy war a dajeeg moom huit pii ndax dafa ma ni yoor yoor ma ne ko yoor yoor bi mooy màggal gi ma ne ko waa ah, Mbàkke luy yoor yoor mun ma boo demee ba juróom-ñetti waxtu suba yaa ngi ci yoor yoor may dàkk huit dama koo sant léegi ci suba gi di ko sant ba ne ko nag xamatuma lu ma lay wax ndax wax naa ba mu mel ni baat bu ma la ko dee joxaat day mel ni baat yi lañoo booy yi te mënuma laa ñàkk sant kon kat dimbaleeti ma yokkal ma ak ubbi ko xel ba ma xam lu ma lay waxati may wax moom ba sëriñ Saliou lii képp di jooy 寂寞。 cëriñ ci laa xam sax ni ak ceex akub cëriñ ndekki bokkul seex nekk na ab sëriñ ba ma mat ñeenti at ma door a seex coocee ci laa gëj a jooyee moo tax moom bi mu jooyee ma ne tekk di ko déglu ne ko jàkk mu wóor ma nii ko neexee mu doon nit ko mu doon Serigne Touba waaw bu ko neexee mu doon nit te la ko ca yóbbu ko mooy sama doom ji di Serigne Sall la ko ni man yi waxtaan wi duma ci dugg lu dul sant sama waajur wii kii ñu naan mooy sama bàyyi ci ndimbal li mu nu dimbali te dama bëgg bu may wax ma wax ci mbooleem ku ma ko bokkal ba bu waxee ba yeggal ma ne ko bu la leeree ni li nga joyal ci man moomuma ko moom mii moo ko moom ndax yéen ëpp damay wax samay doom waaye tey ma tey ma feeñal sa kanam yow mii wax doom nu mu demee man day laata ma leen di am moom mii wan na ma ñaata doom lay am ñaata doom yu góor ak ñaata doom yu jigéen laata ma leen di am moom mii ba ma leen wone da ngeen bari ba ma ne ko lii ñemewuma ko mun waa waaye dama la ciy ñaanal dama la ciy ñaanal bul ko ragal dama la ko dénk rek kon leer na ma ne yéen ñii moom mii moo leen moom moo leen sàkk man dañ ma leen a dénk rek maa ngi yéen ay taalu bi rek la foofee la jooyee te àndoon na maag kuy jël waxtaan wi ak di jël melo yi te loolu kat man rek la koy defal maay ànd ak caméraman bu ma neex maa koy portale loo ak a jëlloo lu ko neex ci biir nekkub sëriñ bi te mu mel ni day defar ba di ko wan boppam boobu film tey bu génnee yéen ñëpp wut ko ndax état bi sëriñ bi demoon bi ma waxee moom loolu ku ko gis di nga yokku ba xam ni yokku nga jëmm ji taxaw yor caméra bi mom la yóbbu bir néeg sëriñ saaliwu tey ci juróom-ñetti waxtu ànd ak sama taw bi ak jin mag fay ak sal sama dom sal suisse joojee sëriñ boobu moom moo ko tuddee ndax daa yoroon li ñuy wax cardiopathie congénitale boppi xol ñu yóbbu ko Lausanne opéré ko mu ñibbisi Lausanne nga Suisse mu ñëw sëriñ Saaliwu ni ko xanaa yaay saal Suisse loolu indi turu saal Suisse bi sëriñ Saaliwu damaa bëgg xamal ñépp nii mooy borom màggal gii da daa bare nag lu baree bare du ko mën a leeral waaye junj doy na ci borom xel sëriñ Saaliwu moom gii ca mbubbam mu njëkk ma daa waxoon ni ñëw leen sant li ma yàlla damay sant yàlla ci bis bi ñëw leen ngeen sant li ma yàlla booba dégg naa fi ndaw ma ñëw te maa ngi karawaatu kat booba damay takk karawaat di soli bes ma ñëw siyaare si ko waxtu timis nu julli ba noppi mu jox ma ma reer nu toog di waxtaan ba yàgg mu yónni ma tar jaxate mii di président conseil rural tey ni ko neel beeco na dem tëdd tey ca sama kaw ba booba sëriñ Saliou mu ngi dëkk ci baraag bi nga xam ni lii di këram tey ñetti këri doomi sëriñ Tuubaa sëriñ Abdoulaye amoon na foofu kër sëriñ Basiiru am fa kër moom mu am fa kër ñetti kër yooyu léegi mooy këram néeg ba mu dëkkoon baraat la nekkoon moo doon néeg sëriñ Basiiru Mbàkke foofee la néegum sëriñ Saaliw ne woon Matar Jaxate ñëw ne ma sëriñ bi nee na guddi na daa bëgg tey jii nga tëdd ci lalu boppam bi ma ne ko ah yow de déggoon la sëriñ bi wax man ma tëdd man ci laalum sëriñ Saliou ah kon nag ma fakku nag mun ma loolu la wax de ma ne ko déedéet laajaate ko lim la wax yow déggoo lim la wax ma tar jaxate dellu sëriñ bi mu ne ko nee ko dina ma neex lool mu tëdd ca lal ba mu ñëw wax ma ko ma ne ko baax na kon dégg naa ko ubbil ma néeg bi te yow booye boo dem toog mataar ubbil ma néeg bi ma tëdd ci tapp yi ñu njëkk ba xaaju guddi mu woo mataar ni ko demal seetal ma nu beccu tëddi mu ñëw fekk ma ma ci suuf may nelaw mu yeema ni ma waaw yow de defoo li sëriñ bi waxoon ma ne ko loolu duma ko def demal tëri suba teel ma yeewu sëlmu dem ne dama koy nuy yi ba mu ko ne kaccit mu ubbi sëriñ bi dugg ni ma duggal ma dugg mu ne ma fii de jox naa la ko bis ni tey danañ la fi indil ab lal ak seen ay yéreem fii nag moom tey laa fi dooru dugg kon bul ni sëriñ bee ko moom buñ la joxee ab lal na nga tëdd ca kaw jëkki ba yàgg mu tokkamti ko plafond bi ne ah néeg bi dee ngi sant ma ne ko ah mu ne waaw néeg baa ngi sant ndax li ma fi dugg te ñaanal rek sax ma dugg fi ci laa xame ne ndeke bant bi ak suuf si ak xeer yi ak fer bi ak béton bi sax day sax moma ko jangal moma ni fi nu tollu di nek baangi sax boba day xawma ci xam-xamu tasuf dara boba mën a deke xam ni fay wax lépp amul roo léppay noyyi loolu jaaxal ma lool mu ne ma nag bu la neexee lu la neex lu nekk sa néeg ba ca Ndakaaru mën nga ko indi fii bu la kenn naa sëriñ bi bëggul lii loolu ñuy wax télévision ay rajo climatiseur bu la kenn naa sëriñ bi bëggul lii ba tax nga bañ ko fee def lu la neex def ko fi moo ma yàgg mbaa yàlla sëriñ Saaliw moo yàgg def ci man lu ma xamul la mu def ci man ba nungu ma war a fanaan ci ab lalam loolu laa xamul lu mu coocee laa àndeeg moom mu yor ma nim ma yore mu defal ma lim ma defal sëriñ saaliwu bu ma tàbbee ci ay xéewalam te moo ma war ndax damay sab dinañu fi fanaan te keneen dootu wax waaye nag wax naa ko baamtu ko baamtuwaat day def kay saa su ne muy dolli dolli na ba yoonu murit may na ma ci lu ab taalube murit musta dégg beeco ma ne ko mbàkke mun ma bis di tey képp ku jébbalooti ci yow am ngërëmul yàlla ah gaa yi sëriñ tubaa day defal na fi góor lu bari waaye dégg guma day ku di sëriñ tubaa defaloon na sëriñ diw seex diw wala sànnaam ku jébbali ci moom am ngërëmul yàlla loolu de doo ko dégg yéen ñii day la seenum sëriñ am ku jébbali ci moom am ngërëmul yàlla ci rajo lay wax te teraanga day ku la ko defal nga di ko fenal doos gor tes gor piir la